waaw euh, euh de ñëw fii centre de vote bu Sangalkam di centre de vote ci bureau 2 pour voter ci élection présidentielle bi nga été ni moom Sénégal sur toute l'étendue du territoire comme nous l'ai constaté ak yéen je suis aw na yoon euh, nit ñaa ngi ñëw di voter ci calme amul benn problème ndax suñu réew du di Sénégal c'est une démocratie vraiment achevée depuis très longtemps ñu ngi voté euh, te actuellement ni fii ci suñu réew ci président Macky Sall euh, organisation bi mi ngi aw ni mu war a awee loolu nag bettuñu ndax euh, expérience bi am ci Sénégal di voté démocratie bi taxaw na bu baax a baax li ñuy ñaan rek mooy ni mu commencé mu continuer ko bon, ngoon bureau de vote ci tëj et que lepp aw ci yoon ci comme ni mu amee fi, ci Sangalkam nous euh, y partout au niveau du Sénégal et particulièrement dans notre département le département de Rufisque